jërë ngeen jëf mbokk internet yi safoo di seetaan site bii di wasaare société ginnaaw ba leen nuyoo ziar leen bu baax a baax di am mbégte ak kontante saa bu ñuy jàkkaarloo ak yéen ci seen i ay plateau yu am solo wala sax soxla yi ñi nga xamante ni moo di askan bi moo tax nag tey ñuy doxantu ba ci diwaanu itali fekk fa nag kaa boo xamante ni kaa bu doy waar la comme ni ma koy waxee saa su nekk wasaare société askan bi la fi nekkal donc bu askan bi soxlaa dañuy def suñu kéemtulaay kàttan ak fi ngeen mën a nekk bu fekkee dañu mën a déplacé wu ñu déplacé wu ñëw fekk si leen aussi mën nañu déplacé wu ñu dégganteeg yéen téléphone ngeen expliqué ñu euh, problème bi euh, naka la demee ñu fexe xool naka la ñuy def ba ngeen daal di am rek solution ndaw si nag dafay dund lu doy waar ca fa nga xamante nii foofu la nekk ba ñu nee lu doy waar nag bokk na ci nit koo xamante ni danga tukki euh, génn sa réew dem ci beneen réew am fa njaboot njaboot yi ñu daal di leen teg loxo maanaam ñu daal di leen téyandi lan moo tax nag ñu jël ñi nga xamante ni moo di doomam yooyu bi fan ak moom téléphone bu ko defee rek mu daal di ñuy expliquer exactement mbir mi naka la demee. jërëjëf mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek maa ngi nag ak soxna si nga xam ne moo daal di am problème ci téléphone bi dañu koy nuyu rek bàyyi ko mu nuyoog mbokku internet yi safoo di seetaan site bii wasaare bu ko defee mu daal di ñuy ñëwal ci problème bi naka la demee allo soxna si ñu ngi lay nuyu. Mhm, tur bi naka la. tur Balel mhm, foo ñuy fan la ñuy déggante ban dëkk nga nekk. yaa ngi Italie. waaw ñuy wax mhm, accord nga am problème tax nga woo ñu ngi nii di wasaare société. ndax mooñ mhm. nga ñu expliquer exactement mbir mi naka la demee. waaw man nag am naa baal ñu yokk yokkal voix bi tuuti comme ça internet yi mën a xam exactement. Mhm. waaw am naa fi ñetti doom. waaw ak ñoom problème joluma seeni fay am naa fi ñetti maa fay ndax ku ma ne demal laaji sa fay ma ne la man bëgg na italien damay bañ ëllëg mu amal nañ problème ñu ko xaalis jaralu ma dara ci àdduna ma mhm. sama njaboot laa bëgg mhm. ndax dara alalu àdduna jaralu ma leen li dëgg la léegi nag ma baax bi ñetti doom aw maa ñoom sama ñeenteelu doom nag mu judd ñu ne dafa am feebar mhm. sa ñeenteelu doom hôpital bi mu juddoo ma ban feebar la amee dañ ne ma daa am feebar léegi hôpital bi ma toxu nag biñ ko mujjee yóbbu nag ba woo ma fajar ay huit heures suba ñu woo ma ne ma biñ ko xoolee dañ naa ban feebar la xale bi yor ñu ne dafa am cardiologue. ah cardiologue ok. cardiologue la am. te mhm. cardiologue bi mu am dafa danger. Mhm. ma ne leen ah ñu ne waaw ma ne leen léegi nag faj bi nu muy demee ñu ne fii koy tey si hôpital yaay am am na heure yu ñu ñëw di seet si ma ne leen waaw. Mhm. heure boobu nag bu jotee ma dem seeti. waaw bu heure visite jotee ma dugg bu heure bu paree ma dem ñibbi. bu ma xëyaatee fajar ñëwaat toogaat ba heure visite jotaat ma duggaat. ba mu dem ba tane bañ may woon nuñ koy joxee garab yi sax docteur yi koy mhm. nañ benn bés ñoom docteur yi ñu ne ma xale bi tane na léegi mën ngaa dem utali koo commissaire fiscale waaw ak euh, pousse pousse bi muy tëdd nga ñëw jël si ko ba ma ne mhm. alhamdulilah tey laay jot sama doom ji ma daw jëli ji pousse pousse mhm. ak euh, euh, commissaire fiscale bi ba ñoom ma taseeg benn docteur di daw mu ne ma looy daw ku sol mbubu docteur ndekete du docteur assistance sociale la mooy ñuy jël xale yi mhm. mu ne ma loolu doo mën a ko dara sama doom ji lañ ne day génn tey mhm. mu yëg ci kaw wax ak docteur yi ma yéegaat docteur yi di gisee ma ne leen yéen déglu ma sama doom damay dem mhm. ñu ne noonu xale bi mënta dem assistance sociale bi nee ma ne leen luy loolu yéen ngeen dama xale bi tane na ba damay dem nee na du dem ndax feebar bi mu yor ta nekk sa yeneen doom yi ma ne leen ah ñu nekk fa di wax ma ne du ma xuloo ñoom ndax du ma xeex ak ñoom ndax xaw ma doole te kenn laa woon. Mhm. seen papa ci la dawee ñëw. Mhm. bi mu ñëwee ñu wax ak sama doom dama koy jël ñu ne ko dañuy woo police. Mhm. ñu yóbbu ko ñu tey nekk ci noonu ma xëyaat ñëwaat seet ci ko. kërëb biñ koy yóbbu euh, seen case communale yi. dañoo xaar ba mu ñibbi ci guddi ki ñu taal oto ñëw jël si xale bi. ma xëy ñëw hôpital di laaj sama doom ñu ne ma xanaa waxuñu la ne yóbbu nañ ko tey. case familiale ma ne leen case familiale. mën naa xam adresse fi nekk ñu ne ma mën a boo koo xam il faut nga dem tribunal ba pare. waaw ma leen lu xew tribunal man sama a feebar ngeen ne da ngeen koy faj lu muy ut ci tribunal. Mhm. ñu ne ma il faut nga dem tribunal juge bi loolu lay décider kañ ngay jot sa doom ak yooyu. dëgg la ma ne leen kon baax na léegi bu ngeen ma joxee date tribunal bi dinaa yo ñu jox ma date tribunal man sama jëkkër ñu koy def. Mhm. bi ñu demee bi na ma xam nga sa doom ban feebar la am ma ko nee nañ cardiologue bi. cardiaque mhm, mu ne ma dafa danger. Mhm. waaw cardiaque. Mhm. dafa danger dañ koy tëye. ma ne ko ah mu ne nekk ak sa yeneen xale yi mais bu tane dinañ la jox sa ma ne ko waaw baax na ñu topp ci bopp ba tey xale bi kii la juddu deux mille vingt et la juddu. deux mille vingt et un. deux mille vingt et un waaw deux mille vingt deux la juddu. deux mille vingt deux la juddu. waaw bi mu juddoo deux mille vingt ba tey. xale bi ñëwut ci man. Mhm, yokkal di ma ko woon di ma ko woon ba mu neex leen. Mhm. siis bi woo ma ne ma damaa bëgg nga ñu jox ko benn famille après bu tanee famille bi indi la ko ma ne ko man du ma mës a signé jox sama doom famille. Mhm, mais lan moo tax lan moo tax ñu jékki-jékki ne la da ngaa da ngay signé ñu jox sa doom benn famille. moo ma jaax man mii di waxanteeg yéen loolu ma jaax. ma ne ko du ma ko signé. ñu ne ma waa baax na tribunal bi jeex na après dinañ la joxaat beneen tribunal. Mhm. may jooy ci buntu bi beneen tribunal bi ñu demaat. Mhm. siis bi ne ma dangaa dëgër bopp. Mhm. xale bi nee naa la si ñeen ñu jox ko benn famille. naa sama décision man maay fi jox ko benn famille bu wéree ñu jox ñu ko. ma ne ko jël nga décision bi mu ne ma waa ma nekk foofu di jooy ñu xëcc ma génne ma tribunal bi biñ ma génnee ñu toog neuf mois yoo xam ne sama xam bi. bi xale bi di def ñaata at la am xale bi bi muy def buñ koy jël ñaata at la am. xale bi buñ koy jël xale bi mu juddoo ba tey ñëwul ci man. bi mu juddoo ba tey 4 mois xaw mois. ci lañ ko doog a yóbbu jox ko benn famille. ñëwul ci man. Mm-hmm. Mm-hmm. ay hôpital la jaabante ba ko jógee Casa Famille lay leen dem. Mm-hmm. bi mu jógee Casa Famille ci benn famille lañ ko yóbbu. ci benn famille lañ ko yóbbu. waaw léegi nag bi ñu ko joxee benn famille. Mhm. famille bi ne bëggut a xamanteeg man ndax mën naa nekk nit ku ñëw di ko kereel ay problème ah, léegi mhm. famille boobu moo koy dundal. Mhm. moo ko yor. léegi nag ñoom ñu toog na neuf mois gisuma xale bi ñu toog ba benn bés ñu woo ma. ñu indi ma seen kaasa yi maag sama yeneen doom bi. ñu tëjee ma ginnaaw ñu ne ma léegi dañoo bëgg tey nga dem gisee sa doom bi. ma ne leen waaw. bi ma demee dem jubu ko xale bi daaw di jooy xamuma daal man tamit may jooy. ma ne ko man la sa yaay. maa ngi nii man la sa yaay ma koy làkk ay italien man la sa yaay mm-hmm. doomu wuyu man la sa yaay xale bi di daw après mu jooy génn ñu ñu garde ko ñoom tubaab bi ma ne leen doo leen ma may ko wala ma woon sa magan mm-hmm. leen appel bi di ko ndax mu mën maa xam mm-hmm. ñu ne ma doo photo doo laal doo jege ñu ne ma doo photo doo ma doom ñu ne ma waaw parce que ci loxo yoon la nekk bu dee sa doom it ci droit léegi ñoom ñoom bi mu juddoo papaam daa nekkoon France mais bi papaam nekkee France samay këyit laa joxe ñu def ci sama sant. Mhm. Sow la sant sama la sant. léegi ñoom nee nañ nee nañ waaw nee nañ xale bu pa bu yaayam juddoo. Mhm. papaam ne fi yaa def sant xale boobu amul papa ñoom seen luwaa ne nañ xale bi amul papa yaay rek la am. d'accord mais ah, mu ne xale bi amul papa yaay rek la am. yaa rek la am waaw. Mhm, ndax bi bi muy xale bi juddoo aussi papaam daan na ñëw ci hôpital bi di ko seet si wala ñu koy jëndal. déedéet xale bi di ko fekk France mais bi ma. bi ñu ah, ne ko am naa maa ngi en danger. Mhm. la bàyyi lu mu doon def yëpp ndaw ñëw. ok mhm. la judd. papaam ñëw xale bi judd le 26 juillet la judd. kii mi ci danger mi ngi hôpital. waaw man bëggoon naa ñëw bu yàgg papaam ne leen sax mën naa photo sama passeport envoyé leen ko mhm. ngeen jël turam turu xale bi def ci sant mhm. xale bi ñu ne ko il faut nga ñëw yow yaay signé mhm. d'accord xale boobu lañ njëkk a yóbbu léegi xale boobu lañ tey ba boole ci ay magam nag tey ñeent ñeent ñi ma yor yëpp ñu ngi ci man nan la demee bañ boole ci ay magam ñetti magam yi mujjee juddu ak seen rakk bi mais naka magam yi am seen rakk naka la demee laa wax ba ñu boole ci ñi nga xamante ne ñoo di ay magam parce que assistance sociale moo ma doon woo. Mhm. bi ñëw siis bi moo doon yebal ay assistance sociale ñu ñëw kër ga di xool si xale bi. waaw bu ñu ñëwee. Mhm. di xool si xale yi di xool si xale yi ba benn bés. Mhm. assistance sociale boobu ne man ne damay bàyyi. ma ne ko ah loolu moo tax ngay bàyyi mu ne ma man liggéey bi bugguma ko ndax damaa yor njaboot te xam na liggéey bi bu ma ci nekkee du baax ci man parce que man dama yor ay xale comme yow. damay bàyyi mais keneen a fi nekk. Mhm. keneen ki ko remplacé nag amul doom amul xol. Mhm. ndax moom faalewul doom ndax xamul méttitu xamul méttitu njur. Mhm. xamul doom. moom daal moo moo topp sama jëkkër dañ laa bëgg a jox kër yaax sa jabar ak sa njaboot. na ñu utal la liggéey. nga mën a régloo nga mën a nekk sa famille sa yooyu. sama jëkkër ne leen loolu wóor na. waxtaan ceeg man ma ne ko ay ndax loolu wóor na ma sama jëkkër ñu toog waxtaan ci guddi. ma ne ko est ce que loolu wóor na mu a ma ah ñeme man fi ma njëkk a xamee ne dañ may nax ma mhm. ko njëkk a xamee dañoo bëgg a jëm jël sama yeneen doom yi mhm. dañ maa sori la dëkk boo xamante ne dafa sori waaw dëkk bu sori boo xamante ne eh, bokkut ak sax sama doom man maa ngi rom doom a ngi rom ñu mhm. dëkk bu ñuy wax Benevento dëkk bu sori bu sori terrain bi boo koy jël xaalis bu ngay fay ma léegi yéen lan la sama doom ma demee këram ngeen di ko faj ngeen indi ma ci dëkk bi ci la sama xel ñaaw na. mais lan moo tax ñu yëkkati la ci fa nga nekkoon yóbbu la foofu ndax situation ya nga fa nekkee woon situation bi dafa baaxul maanaam nekkin ba kër ga dafa normalul wala situation bi demee noonu. normal am naa ma sama résidence ñaari at fa laa amee carte sama doom yi jub yëpp lañ amee carte d'identité. ok fa lañ amee yëpp. Mhm. léegi kër ga am ñetti néeg. Mhm. ñetti néeg la am ak douche ak salle bu yaatu ak waañ. waa ñu jëlee ma ko. yóbbu ma ci beneen kër bu dee ñetti mhm. léegi nag man li nga xam ñu jële ma ci kër googu ne dañ lay man li tax ma dem sax nangu mën a dem waaye dañ lay dem dañ ne dañuy utal sama jëkkër ak liggéey mhm. moo tax ma ne leen kon nañ leen dem mhm. bi ñu demee ba ca kër googu nag ñu xëy benn bés rek bind benn këyit waaw bi ñu bindee benn këyit ne ma dañ lay kii dañ lay yóbbu kaasa familia dañ lay kuuraare ndax dangaa ëmb Mhm. dañ lay dimbale ba nga am doom boo mhm. amee doom rek nga ñibbi sa kër mhm. nekkete dañ lay nax dañ lay tëye fii di la yéegloo tit man li ñu ma yéegloo tit bi naan wàcc loo ma noonu la baree yow boobu dangaa nekkoon boobu dangaa nekkoon en état waaw damaa nekkoon en état waaw ok nii daal la wax ji demee man daal bëgguma dara bëgguma dara sama njaboot gi rek laa bëgg sama mm-hmm. njaboot rek laa bëgg ñu delloo même buñ may delloo sama réew mm-hmm. ñu delloo ma sama réew samay doom laa bëgg mais biñ la yóbboo ci kër googu dañu jékki-jékki yóbbu xale yi wala nu mu demee mais biñ ma yóbboo ci kër googu maa ngi fa xale yi mm-hmm. ak sama jëkkër ñu nekk fa di togg di lekk di naan di su ma bëggee ñëw rom seet si samay mbokk ma ñëw rom waaye dañoo jékki-jékki benn bés ma xàggu leen ne leen damaa bëgg dañ dem sama mag bi. Mhm. ndax ñu ne ma noonu yow mën ngaa dem waaye xale yi duñ dem ma ne leen luy loolu fan ngay bàyyi sama doom a ngi xëy bi. Mhm. ñu ne ma da ma ne leen noonu. Mhm. après mu am ñetti fan ñu bind benn këy ne ma tribunal ne dañ lay delloo rom mais kaas sa ma ne ko kaas sa famille. lu ma xewle bay dem kaas sa famille. lañ lay yóbbu. ma ne leen ah ñu biñ ma yóbboo Casa Famille biñ ma indee Casa Famille le 16 décembre lañ ma fi indi. Mhm. bi passé. Mhm. biñ ma fi indee nag ma topp di dem tribunal di ñëw di dem tribunal di ñëw. ba barke démb. Mhm. le 16 euh, octobre bi ñu woo ma tribunal ma ñëw. ñu dugal ñëpp dugaluñ ma. dugaluñ ñun ñun sénégalais yi toogoon ci buntu ba dugaluñ ma. lu tax. ah damaa xam lu tax seeni pexe. ok. Hmm? seeni mhm. pexe daal dugaluñ ñu bi tribunal bi jeex avocat bi na nan leen dem mhm. juge bi décidé wul tey dara bu subaa fekk leen ma sama office mhm. waaw léegi bi demee foofu si office sama nijaay ñun dem office am mu ne ñu toog fa mu ne leen ah, changé leen beneen avocat ngeen jël avocat bu am doole wala ñoo nangu xale yi ndax ci tànk yooyu lañ nekk waaw ñu toog ba ay midi ñooñ di génn si avocat bi mu ne leen juge bi bind na nee na léegi yaay ji la bëgg ñu soreel doom maanaam yow nga bëgg nga bëgg ñu soreeg sa doom. yaay ji waaw. Mhm. waaw na soreeg doom yi mhm. léegi nag. Mhm. loolu la wax ji demee lii ma la ne expliqué la wax ji demee. léegi ñoom daal juge bi dafa décidé que ne yow da nga war a sore ak say doom. waaw damaa war a sore sa te damaa yor doom joor six mois muy naan ma rek la xam. léegi ana xale bi. ndax kii am na xol xale baa ngi nii ma tëye léegi li leen bëgg mooy séparément moom. ah yóbbooguñu xale yi. jël xale yaa ngi nii ci man waaye li mu bëgg mooy man ma dem ñu jël xale yóbbu leen feneen. ah ñu jël xale jox leen amuñu yaay léegi chaque semaine wala chaque deux semaines ma dem di seet. Mhm. Mhm. bu yàggee nag ñu ne ma dootoo fi ñëwati xale yi bëggatuñ laa gis nee nañ bëggatuñ laa gis. Mhm. ndax dañ nga leen di pertel ba boo fi ñëwee dañuy jooy. léegi mën ngaa bañ a tee ñëw bu ñu amee dix huit ans nag. lañ lay woo woo xale yi woo ki leen yar. ñu laaj xale yi seen yaay ngeen bëgg a nekkal wala ki leen yar ngeen bëgg a nekkal bu keroogee soxna si kan la ñuy wax lañ bëgg a nekkal ki leen yar ah mooy loolu nag mm-hmm. man nag loolu laay daw nag mm-hmm. ndax samay doom rek laa am mm-hmm. man dafa metti ëmb dafa metti d'accord ndax xale yi seen papa sénégalais la wala seen papa sénégalais la waaw ñoom ñeenti xale yi yépp ñoo bokk papa waaw d'accord naka la demee aussi ba ngeen waaw naka la demee ngeen nekkoon tey benn famille mu jékki-jékki ne leen dañuy jël seeni ay doom ndax yow danga am problème foofu wala sa boroom kër dafa am problème wala. man de maa ngi problème bi demee ni ma leen ko mhm. maanaam la mujjee ah. laaj mooy que ne yéen a ngi nekkoon en famille foofu di dund ci jàmm ak salaam yow ak say doom. waa ak sa boroom kër waaw mhm. nga dem tey ba ñu jékki-jékki ne dañuy décider ngir yóbbu sa ay doom ndax da am foofu problème wala kenn sa ki nga xamante ni moo di sa borom kër dafa am fi nga xamante ni foofu ngeen nekk problème aussi boo xamante ni war na pousser ñoom ba ñu bëgg a nangu say doom. Mhm. léegi laa dugg mosuma am ak ay policier problème mosuma am ak ay ay tribunal problème mm-hmm. du problème ak ñoom ndax xam nga dëkk bi moom dafa saxoo problème mm-hmm. dëkk bi dañ lay fekk nga toog sax ñu visité la amoo carte kayit ñu ne la lu tax amoo kayit ñu yóbbu la mm-hmm. te ñoom am mosu fee tëdd pénal mosuñu ko fee jàppe dorog mosuñu ko fee jàppe lu nga document amoo document wala ramasse d'accord ah, d'accord mhm. ndax xale yi tamit yéen a ngi def li nga xamante ni moo war si ñoom dooru leen defu leen leen loo xam ne war na leen a poussé ngeen ñu nangu leen. déedéet man samay doom. Mhm. Mhm. ay doom lu fi utile. samay doom sang solal yére toppatoo ndax man damaa damaa mën xale. yàlla dafa def mu mën seen depuis ba ma nekkee Sénégal damaa samay doom nag maa leen yoroo. di leen sang di leen toppatoo di leen dogal. man àq doom moom du ma topp ba ba may dugg biir bàmmeel àq doom du ma topp ndax damaa amoon xale mhm. samay doom dama leen di sang dem ñoo ma gënal lépp lu mu mën a am mhm. ndax defe naa ci yàlla suñu borom am na ñoo xam ne xamuñu doom ñu doom tëddee ci biir xamuñu nu nekkee ci biir kon mhm. du ma nekkee xale ñëw fi ci réew mi yàlla suñu borom may ma njaboot yàlla mi xam ne kii may jox nii mën naa tëye te kii moo tax ma di ko jox dama nekk nag murit nag nekk taalibi Sëriñ Tuubaa bu set wecc ndeysaan sa doom yi waaw sama naa ko sëñ Tuubaa def naa ko war def Seexul Xadiim ay jigéen dañ wala. am naa maam jaara. Mhm. sama premier doom maam jaara bu solo. Mhm. la tudd. Mhm. bésu kastara jóg la judd. ne huit heures et demi la judd bésu kastara jóg ñu tudde ko soxna jaara bu doon góor sëñ Fallou lañ koy tudd. ndeysaan ñoom ñëpp ay jigéen la jaara déedéet ki ci topp. Cheikh Ibra ci topp Cheikh Ibra. Cheikh Ibra waaw maamaam doom ju góor ñu tudde ko Cheikh Ibra ma amaat beneen doom sama jëkkër tudde ko yaayam mhm. sama benn ma gaañu mhm. ma am doom sama jë sama jëkkër ne ma mhm. may naa la tur bi ma jox ko sama bi gaañu ma jox ko sama mag muy isal ma amaat doom ci avril bi muy góor ñu tudde ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam depuis at ñaata foofu man 2016 laa fi ñëwoon 2016 ak léegi rek naa dix ans am mhm. onze ans. d' accord ndax bi mbir yi amee tamit amul yenn association yoo xamante ni ñu ngi jàppale ay jigéenu Sénégal wala sax association yoo xam ne ñu ngi jàppale seeni i moromu sénégalais yoo xam ne ñu ngi foofu. waaw ah, samay mbokk daal moom samay mbokki ndaw beeg samay mbokki sénégalais moom. Mhm. ñu ngi may jàppale. ok wax dëgg yàlla ndax biñ laajee avocat kenn mhm. toogu. biñ laajee jigéen takku nga. kuy samay càmmiñ samay samay eh, samay xarit mhm. samay am di jàmm ñëpp ñi ma xamoon takku nañu mhm. waaw mhm. man maa xam man maa xaw a jaaxle rek ndax sama njaboot gi rek laa am ma ne lii il faut jot ci ndax ma jot samay njaboot defoo ay démarches tamit xool boo xam ndax foofu am na ay association yi fi nekk waaw bu fi amee tamit man xaw ma ko ma dem fenn man samay doom rek laay laay laay parce que man xaw ma ndax am na am déet fekkee am na bu ma déggee nañ ma dimbale ngir yàlla ñu taxaw ma jot mhm. mhm. yi ndax dañuy jàngi wala dañuy xëy nekk ci kër gi ñu ngi jàngi jàng kenn jaaraa ngi jàngi mhm. école ngi def asilo mooy jardin jumaa ngi def asilo mooy jardin waaw d'accord ah, nag ki ñu joxe moom ki nga xam ne moo yor cardiaque bi ndax yaa ngi koy seeti yaa ngi koy gis jox nañ ko déedéet gisatuma gisatoo ko moom lan la góor la wala jigéen la. jigéen la mooy la d' accord sa bëgg-bëgg. exactement waaw d' lan la. sama njaboot. même buñ may delloo sama sama réew. maa sama njaboot ma nekk ci jàmm ba nga dégg xëy gis. kenn koo xam tiit naa ci sama njaboot mhm. ndax man sama njaboot gi moom mooy sama lépp sama sama njaboot a bëgg ba pare rawatina li ñu doon waa kër Seexul Xadiim mhm. li ñu doon murit mhm. damaa bëgg sama njaboot gi nag lu ma lu ma am rek sama njaboot gi ma ko gënal tey bëgguma ñu doon ay murit ba pare ñu wëlbatiku ñu di beneen xeer di leen def beneen boo xam ne neexut yàlla neexul yonent bi ndax man ma sañoon lu may def wala sama njaboot ci lu ñuy nekk day neex yàlla neex yonent bi neex Seexul Xadiim ndeysaan Mhm. jamono yi naka nga koy dundee en tant yaay yor ñeent bant ñu jékki-jékki rek bëgg laa séparer ak say doom. lekkuma naanuma. ndeysaan. lekkuma mhm. mhm. naanuma. nelawuma. tooguma taxawuma ma samay mbokk. tooguñu taxawuma. lekkuma naanuma nelawuma ma nelaw waxuma dëgg su ma nee maa ngi lekk mu yegg ci sama biir bi ndax sama doom bi mujjee jug. ku xool. man dañ la xam ndeysaan nga ne xale bu judd am 6 mois. di ko kott ak xale bañ nañ ko booy génn sax ñoom kër gi man ñu ma tëj.

déedéet mosuma dénkaane sama yow. mosoo dénkaane xale yi. mosuma koo dénk tubaab mosuma koo dénk tudd samay mag ànd ak samay mag ñu jàpp seen i loxo ma jàpp seen i loxo ñu dem. ok ñëwaat fu ñuy dem ñu dem ko ñëwaat. Mhm. d'accord pour ñi nga xamante ni leen ba di leen dénk sama doom. Mhm. d'accord pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay seetaan nekk fii wala ñu nekk fa nga nekk tey ba amoon message booy lancé jëmale ko ci ñoom ban message lay doon. may may ñaan ku ma jàppale ba ma jot sama njaboot. Mhm. man bëgguma dara man sama njaboot gi ñoo loolu laa bëgg ku ma jàppale rek ba ma jot sama njaboot gi ngir jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu bokk te kuy murit kuy murit nga yaakaar Serigne Touba mm-hmm. yaakaar Serigne Mountakha mii fi yàlla teg mm-hmm. yaakaar Serigne Modou Gala Sow mii nga xamante ne ñun ay law lañ xamuñu ñaan mm-hmm. xamuñu lu bon xamuñu def lu bon ñun law ba yàlla moo ñu sàkkee noonu liggéey la ñu xam mhm. berloo ñax jëriñu lañu xam dëgg la rawatina ba ñu nekkee taalibe sëñ Moodu Gala Saw mhm. wala ba di ku nekkati taalibe sëñ Muntaxa bokk ci Tuubaa bokk ci Njaareem bokk ci kër gu mag mhm. ay jullit àqal lañ ay ay ay murit lañ ku ko jàppale rek rawatina nag waa kër Seexul Xadim yi rawatina waa kër Seexul Xadim ku ma jàppale bu ma jot sama njaboot gi daal laa bëgg d'accord fan nga bàyyee fan nga bàyyee ko woon si si Dakar man sara Jurbel laa bàyyeekoo. Jurbel. Mhm. Jurbel laa bàyyeekoo CSN. laa mhm. bàyyeekoo ah ok. Mhm. d'accord ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax kàddu gu mujj gi ak message bi lan lay doon. ma leen di jaajëfal yéen ñi di Wassare di leen sant di leen gërëm ba ngeen di merci beaucoup di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ku nekk. ku nekk rek da nekk tey jullit rek. say hmm. say ngay julli ñeenti waxtu yi leen di ko jox Seydina Muhammad maa ngi lay sàmp ñaan nga ñaan am ko sama njaboot gi def sama bopp hmm, hmm. d'accord jërëjëf jërëjëf merci jërëjëf merci beaucoup jërë ngeen jëf mbokk internet yu doon safoo di seetaan site bi di wasaare société ñu leen di jaajëfal bu baax a baax yaakaar naa ne dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni soxna si daal dina koy yëkkati mu nekk fële ca États-Unis ñu daal di bëgg a nangu ñi nga xamante ni ñoo di ay doomam nangu nuñu nañu ak kenn ci ñi nga xamante ni moo di xele yi mu des ko ñeenti doom yoo xamante ni ñu ngi ci ay loxoom ñu bëgg ko nangu moom nag daal dina expliquer problème bi fi mu commencé ak fi mu nga xamante ni moom la yegg si tey mu bëgg rek ñu jàppale ko muy ñi nga xamante ni ñoo nekk foofu ak ñi nga xamante ni aussi ñoo nekk fii euh, te moon ci jàpp rek ñu jàppale ko ngir ñu bañ a yóbbu ñi nga xamante ni ñoo di njabootam jooju ndax ku ne xam na xolu yaay ci doom boo ko naree tàkkalee ak ay doomam dafay nekk loo xamante ne nii lu méttee metti lay doon donc ñu ngi ñaan rek képp koo xamante ni mën na jàppale soxna soosu mu jàppale ko te yàlla rek tax di leen jaajëfal yéen mbokku internet yi doon safoo di seetaan site bii di wasaare société di leen jox rendez-vous ba beneen yoon incha allah ak yeneen i actualité ak système benn taalibe Serigne Abdoul Karim Mbacke bu mag bi jaajëf et merci beaucoup